بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله نسأل الله تبارك وتعالى على عفو والعافية والسلامة من كل سوء mbokk نجلين دينيو di santaat borom bi subhanahu wa taala baaxeewaat nañu yow suñu dars al aqida ñu àndoon ci ak al aqidatu tahawiya ñuy dooree suñu bind tey ci xatuk ñaari téeméer juróom benn fukk ak juróom benn euh, muy deux cent soixante six xam ngeen ne ñu ngi nekkoon ci ictiqaadu ahli sunnati waljamaa mooy pas-pasub ñi tëyee ci qur'an ak sunna ci atte ñu ngi nekkoon ci këpp ku tudd baatu seede yi duñ ko génnee ci diine ji ci loolu lañuy wéy suñu bind tey duñ ko génnee ci diine ji waaye lan lañuy fas ci moom ci bu génnee àdduna moo tax cheikh bi tënkal ñu mu ne ñu wa narju lilmuxsinina min almuminin an yafuwa anhum wa yudkhilahum aljanna birahmatih ولا نأمن عليهم ولا نشهد لهم بالجنة ونستغفر لمسيئهم ونخاف عليه ولا نقنتهم kon kaddu yi bu ci nekk ab pas-pas la ndaxte atte la la mu tàmbalee leeral ko mu ne këpp ku gëm di def lu baax këpp ku gëm di def lu baax dañuy rafet njort ci moom ne yàlla dina ko jéggal dina ko dugal ajana ci yërmande kon aste baangoog li waral aste bi mu ngi noonu mooy këpp bépp jullit buy def lu baax dañuy rafet njort ci moom ne yàlla dina ko jéggal dina ko dugal aljanna ci wërmande moom tabaraka wa taala mu ne waaye nag nekkut lu ñu fas ne noonu rek la mën a demee déedéet wala na aman mu ne ah du ñu leen wóolul nag cent pour cent ne ñoom jàll nañu déedéet dañu yaakaar rek mu ne itam du ñu seedeel kenn aljanna nit faatu rek ñu ne aljanna duñ ko seedeel kenn mooy ñi def lu baax amma ñi def lu bon moo tax mu ne wa nastaghfiru li musiihin képp ku def lu ñaaw nag dañ koy jéggulul waaye suñu xel du dal ci moom suñu xel du dal ci moom waaye duñu dogg nag ne dinañ ko mbugal kon lii mooy pas-pasu ahlu sunnati wal ci jullit bu baax di def lu baax ak jullit bu safaan di def safaan seen pas-pas boobu moo tax képp ku ñu ne jullit la bu faatoo ñu jullee ko mahma kaan minal min al maasi donte bari na ay bàkkaar mbaa jëfuk safaan dañu koy dañu koy jullee du bari ay yiw mukk nag dañu dogu ne mu nga aljanna naa mbugal déedéet dañuy yaakaar rek kon loolu mooy pas-pasu ahlu sunnati wal pas-pas boobu nag kàddu yooyu ñu joxoñ lan lay firi lan mooy tegtal ba kon bépp jullit lii la war a fas ndaxte moo mucc ayib bu ko fasee fu mu koy tàmbalee ci boppam parce que balaa ngay dem ci keneen ci boppam gis na ne mu ngi julli mu ngi jéem mu ngi def leneen mais day yaakaar njéggal yaakaar dugg aljanna mais ci yaakaar rek lay doon mooy boppam moom ci boppam jàllagul jàllagul ci keneen su fekkee maandu na it gis ne moom safaan daal mu ngi ci daa war a ragal tiit jàpp ne mbugal mën na ko caa fekk loolu baaxee ko mu tiit tuub nim ko fasee ci boppam nag noonu la koy fasee ci keneen moo tax ñu baax ña borom bi da leen nettali mu ne ñooña أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محظورا Ou la ike, nyo yu. Mwen nyan, nyo bak li. Mwen e bolen gise. Bege gise, nyo yi yamu. Nyo yi yamu. Loutak nyo yi yamu. Iye betakoun. Yamu bov devlen diyo be, nyo yi wout. Loutak nyo dem ki Allah. Aya bov mwen janek pouplemik ki nyen menyi. yabtaxuuna ila rabbihimul wasila mooy dañuy wër di wuut lu leen di yóbbu ci yàlla am baatug wasila boobu moom mooy moyen bu ko yóbbu bu dee da tukki moyen transport lan moo lay yóbbu may dem sàndaga lu lay yóbbu da dox da war vélo da ngay dugg BRT jël taxi da duggu kaar loolu yëpp ay wasaa'il la loo xam ne man na la faa yóbbu ci moyen yooyu nag la ñenn ñi wute ak gisinu ahlu sunnati wal jamaa ahlu sunnati wal jamaa dañuy gis ne moyen boobu du nekk jëmm ndaxte bu nekkee jëmm rek sirk ñëw na ndaxte mënatoo koo teqale ak ki samp dara di ko jaamu parce que mu jàpp ne moyen la nga jàpp ne looloo koy yóbbu moo xam nag lu am xel la wala lu amul xel la ñoom ñu gis ne moyen boobu ñuy jël boobu mooy al iman wala amalu salih mooy ngëm ak jëf ju baax من الصلاة والزكاة والصيام والحج ونوافل المالية وغير ذلك دف جو باخ جوجو غنا ونغم بي موي جولي دي اساكا دي وور دي مكه دي نافله يا ألال علال ولا ينيني كون كوكو موغي وود موين بيكو ييغالي تبارك وتعالى amma bu dem mooy jëmm def lay yóbbee ci taqaawus def lay yóbbee ci ne dootoo yëngatu wala doo def effort dangay ngay jël benn waay rek nga ne diw moo ma yóbbu diw mooy sama wasila da ngeen nit ñi niñ koy waxee diw mooy sama wasila wasila bi fu la jëmee tabaar ilallah tabaraka wa taala lu mu la yóbbu ci yàlla loolooy problème bi ci ahlu sunnati wal jamaa diw mooy sa wasila moo la yóbbu mais num la yóbbu bi barakatihi aw bi azamatihi aw bi maaga ci barke bu mu am la lay yóbbee wala ci màgg bi mu am la lay yóbbee kay ahlu sunnati wal mu ne bu dee jëmm abadan manta ne illa an yuallimaka tariq wa yuallimaka al ibada wa yuallimaka al ixlaas lu dul mu jàngal la mu jàngal la sellal mu jàngal la nu ñuy jaamoo yàlla mu mu mu waaw kooku du moyen bi mais def lay digal moyen bi ñu bari nag sew-sew boobu moo leen di rëcc du jëmmam bi déedéet mais daa am lum la jox da bugga bugg a dem amoo oto mu abal la oto xam nga moyen bi la yóbbu du moom mais def laa jàppale ci moyen bi nga xam ko am effort kon foofu euh, ñu bari xaw nañ fa am jafe-jafe moo tax borom bi subhanahu wa taala mu ne ñooñu ñooñu nga xam ne dañuy wut moyen bu leen di yóbbu bu dee moyen jëmm nag mu ne yàlla ne ma laaj la ayyuhum aqrab bu dee moyen yow yaa ngi wut nooy jege yàlla wut nga beneen moyen mu ne yow kii wut ak yow ki ñu tànn kan ci yéen moo gën a jege yàlla parce que da ngay jortu rek mun ngaa jortu rek ah lii man biraan moo ma gën a jege yàlla ni ma gis ni muy def ak nangam nangam nangam mais yaakaar la rek bu fekkee yaakaar la xalaat yaakaar la dogu la rek amoo ci dogu da ngaa yaakaar rek kon bu dee yaakaar dong dëgërut kon ayyuhum aqrab te ñoom ñaar ñépp nag yarjuun wa yaxaafuun mu ne ñoom ñaar ñépp nag yàlla la ñu yaakaar koo tax olof yi ne koo yaakaar bu dee ko yaakaar yàlla la yaakaar kon lu fekk yaakaar yàlla rek mu ne ñoom ñépp nag dañuy ragal wóor na leen ne bu ñu defee lu baax yaakaar siyaabu mais bu ñu defee safaan ba it ragal bugal rek ñëpp a ci yem ñëpp kon moo tax borom bi subhanahu wa taala ne nañ ci bàyyi xel te mbugalu borom bi moom borom xel bu ne de ko war a de ko war a suri mu ne lépp it loo jàpp ne man naa doon moyen bu laay yóbbu bu dee ab jëmm mu ne moytul lu tax mu ne daa am àqub yàlla bu ko ko jox lii mu ngi wax fii ci xaqu shayatin fala taxaafuuhum wa xaafuuni in kuntum muminin bu leen ragal ragal leen ma su fekkee am ngeen imaan e mu ne su fekkee ne iman bi am na kon euh, aaya yi jëm ci anam boobu aaya yu bari la lool lool borom bi nag ne moyens moom ku ci bëgg mais foog nga taxaw de du keneen moo la koy defal sa place déedéet yow yaa koy defal sa bopp mu ne ulaika yusaari'uuna fi lxayrat wa hum laha saabiquun mu ñi jaar ci yoon wi nag jël moyen bi mu ne waaw mu ne foo leen fekk rek dañuy njëkkalante ci def lu baax te boo njëkkalante ñoom ñu jiitu la dañuy njëkkalante ci def lu baax te boo njëkkalante moom ñu jiitu la ñooñu ngay njëkkalante ñu lay jiitu nag ñoo ñooy salafu saleh mooy yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ak ñamu yaroon te borom bi subhanahu wa taala tàgg leen fu ne ba mu ne gërëm na leen te ñoom itam gërëm nañu ko mu jàngal la mu ne nanga nga ñaan yàlla bu mu def xaar ma yàlla ci diggante yow ak ñoom moo tax borom bi baaxee leen néew na ci ñoom ku ñuy tànn ne mooy suñu wasila néew na ci ñoom de ndëm am na Abu Bakr Siddiq nga xam ne jëf na ba yàlla seedeel ko mu bokk ci al ashara al mubasharuna bil janna yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu ne ajana la jëm foofu nekkatul yaakaar rek parce que wax nañu ko mais limaada la nattaxisu wasilatan lu tax du ñu dem ñu ne kon Abu Bakr moo mo ñuy taxaw mo ñuy defal nangam ak nangam kanaw ñu ne aljanna la jëm ak mom aljanna la jëm kon loolu moo tax bu ñu dello ci salafu salih dinañu won yoon wi nga xamne ba alquran di wacc aya yi di wacc lan lañuy firi yonent bi leralal lan len ko ci pas-pas ci wax ci jëf kon kep ko xamne mu ngi wut moy pour ag ci borom bi subhanahu wa taala fu ñu wax yiw rek boo jogee moo lay jiitu fu ñu ne yiw rek boo jogee moom moom moo lay jiitu moo tax euh, Hasan ibnu Sabit radiallahu an moo doon wax ne wa in kaana fi nnaasi sabaaquuna gayruhumu fa kullu sabqin bi adna sabqihi tabau bu ne su fekkoon ne nit ñëppayi daw rek fëx jëm ca yàlla mu ne sahaaba yi keneen ku dul moom ki jël ndaare ci gannaaw kooku la ñeneen ñi di ne bi adna sabqi tabawu kon loolu nañ ci dal di bàyyi xel te ñooñu fasuñu woon lii ñoom la ñu fasoon li la yóbbu aljanna yaa koy defal sa bopp li la yóbbu safara yaa ko defal sa bopp gannaaw nag cooba rek tabaraka wa waaye amul beneen jëmm bu nekk fële bu dul borom bi subhanahu wa taala boo xam ne mën naa taxaw ne moo laa yóbbu loolu njuumte la wala bu ma bu ma deful ay waxam day doon sabab duma dem loolu njuumte la kooku bokkaale la moo tax yu dal di ko ñu dal di ko tere نتكي باي في خير موين دون رواية عائشة رضي الله عنها موين لاج لو أما أم صل مم عائشة من من ديمان يرنتك يا رسول الله الذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة هو الذي يزني ويشرب الخمر ويسرق قال لا لا يا ابنة الصديق ولكنه الرجل يصوم ويصلي wa yatasaddaqu wa yaxaafu an war a bàyyi borom bi subhanahu wa taala wax ne am na ñoo xam ne dañuy def lu baax boole ko tiit julli tiit saraxe tiit woor tiit joxe asaka tiit Aïcha ne aaya bii yow ki yàlla yónni xanaa njaalokat yi ak sàcckat yi moo tax aaya bi jóg mu ne xanaa njaalokat yi ak sàcckat yi moo tax aaya bi jóg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko déedéet ñooñu taxul mu jóg de aaya bi ñi tax mu jóg mooy benn waay boo xam ne day woor day julli day saraxe waay loolu mu def moom ci boppam day ragal yàlla bañ koo nangu kon aaya bi yonent bi leeral na ko loolu nag jar na ragal yow julli bi nga julli kan moo la ne yàlla nangu na ko yow da ngaa julli rek xamoo ndax yàlla nangu na ko sa waay da ngaa gis muy julli rek est-ce que yàlla nangu na julli wala yàlla nanguwul nangu na kooram wala nanguwul kooram nangu na saraxe wala nanguwul saraxe kooku yàlla xamalu ko kenn moo ko yoreel boppam te wax nañu ne nit dina julli dina joxe asaka dina woor dugg safara waxuma la sax dugg noonu mais julli beeg koor geeg asaka bi nangu nañu ko yàlla nangu na loolu mais jox na ko tiyaabo mais ëllëg yow man xeema ñu atte ko mu dugg safara donc yonente bi sallallahu alayhi wa sallam moo ñu ko mu ne keroog benn waaye dina ñëw jaa bi maasa bi salaatin wa zakatin wa siyam lum ci teg fa ida gis nga julli woon nañu nangu ko jox ko tiyaabo jox na asaka ñu nangu ko jox ko tiyaabo woor nañu nangu ko jox ko tiyaabo mu faatu ñu dencal ko tiyaabaam yi ñu dekkal ko di ko atte ne ko yow sa julli sa azaka sa koor lan ca am ci tiyaabo man na laa dugal aljanna yàlla ku maandu ba ñu waxee loolu mu ne ndekete yo fa ida tuur na deretu kii jël na alalu kii xas na kii saaga na kii tuumal na kii gaa yi tël taxaw ku nekk laaj àqam mu ne ñuy jël àq yi di joxe di joxe ba lamu amoon ca tiyaabo jeex tàkk gaa yaa ngi des ñu jël seeni bàkkaar yen ko ko ko ci safara kon nañu bàyyi xel dogul nit ci dara loolu duñ ko def de parce que am na mbir yu leer ci kanam yonent bi sallallahu dem nañ jihaad ba xeex bi jeex ki doon womotal yonent bi sallallahu daa baam xamuñ fu fett jógee dal ko mu dee mooy mid am gaa yi ne an la ñu ne ah fexe na dee na ci yoonu yàlla yonent bi sallallahu alayhi wasallam déedéet ci yoonu yàlla mu nga safara lu ko yóbbu safara mu ne xeex bi ba muy laata pare moom commencé na di rawale commencé na di di rawale di jël alal di dencal boppam loolooy sabab mu dugg safara saxaaba bay commencé di delloo man de dàll bii moom vraiment sama dàll la daggoon lii nangam la woon lii nangam la woon hakaza kon duñu dogul kenn ci jullit yi aljanna wala safara abadan ku baax ki dinañ ko yaakaaral aljanna ku bon ki dinañ ko tiital mbugal waaye duñu dogu lenn ci loolu ndaxte ki baax maa xutima la maanaam deewagul xamoo ci lan lay deewee laa taarif léeg-léeg mu dee sa kanam mais xam nga ci lan la dee laa taarif kon yaakaaral rek keneen ki itam xamoo ci lan lay dee ci mbonam léeg-léeg nag mu dee fekk am na fu mu fu mu jaar loolu mooy li ñu waxoon nettali ko ci imam Safa yi benn waay boo xam ne mu nga fa woykat moom day woy di wax ay tuuxi duuna rek mu ne parce que moom gaa yi bu ñu noddee mu ne ah man day moom mu ne moom day li mu gis moom mooy jóg dem ca baar ba naani sàngara waaye gisul muy dem ca jàkka da di julli ndaxte moom daa gis yàlla dafa ne fa waylun lil musallin waxul lil mushkilin xam nga loolu mooy saboté ba mu faatoo imam Saafi ne kii moom du ko jullee ña ko doon sang génnee ci yéeréem ab këy boo xam ne bind na ca yàlla yow dong nag yaay yàlla xam nga li nga xam ne def naa ko waaye yow yàlla ci yërmande bi waa bu dee yow ñu baax ñi rek ngay dal yërëm kon ñi def safaan mel ni man moom ku ñu yaakaar kon ñun yow la yaakaar kayit boobu moo tax imam safa i jullee mu ne lii tawba la lii tuub la nit mun na koo faste yow xamoo ko fekk doon def lu ñaaw loolu moo tax ahlu sunnati wal jamaa def kat lu ñaaw dañ koy jullee ñaanal ko hakada gis nañ ko fii muy mandi waaye jullit la dañ koy jullee dañ ñaanal ko hakada moo tax képp ku ñu def hadd dañ koy jullee ku ñu def hadd rek dañ koy jullee illa haddu maasa ban xadd lañ dul al murtad ki njaalo ñu rey ko dañ koy jullee ki rey nit ñu rey ko dañ koy jullee mais murtad bi wax xalaas parce que hada mata kafiran kon loolu mooy aqidatu ahlu sunnati wal jamaa loolu euh, jàpp naa te la laa gëm mooy pas-pas bi gën a mucc ayib pas bi gën a mucc ayib ku mel ni alxasanul basri mu ne moom daal li mu jàpp ci aaya bi kan la yàlla di waxe mooy ñi def ñi nga xam ne dañu taxaw bi taati wajtahadu fiiha wa xaafu an turadda alayhim ni ko yonent bi sallallahu alayhi wa mu ne ñi def lu baax ñooñu daal la aaya bi di wax lu ñuy ragal kon dañuy ragal yàlla bañ ko nangu du yàlla ne na boo demee ci seetkat mu seetal la ñaata fan ngay julli di ko nangu xalaas est ce que yow xam nga ne waa ji demoon na ci seetkat ba m fa jógee balaa quarante jour ami di pare mu dee te jëf ji mu def ci diggante bi nanguwuñu ko rëgëte nañ ko est ce que xam nga ne nit ki bu defee chirque bu mag lu mu mos a jaamu yàlla day neen mu dellu zéro yow da ko xam mun ko mun nga koo xamee ci nit ñi munoo koo xamee ci nit ñi kon rafetal njort rek bu dee yonent bi sallallahu alayhi wa la ko yàlla wax la in ashrakta la yahbatanna amaluka wala takunanna min alxaasirin yonent bi la wax kon ñun moo tax mu yoon waaye yonent bi xaasa lillah xam nga du bokkaale yow Muhammad boo bokkalee ma mabb say jëf boo demee ñu lay atte doo fa fekk dara mais loolu du Muhammad parce que Muhammad yàllaa ko sàmm yàllaa ko aar yàllaa ko yore kon ñun moo tax muy wax yow xamuloo ku dee ci iman ak ku dee ci shirk kon rafetal njort rek waa ji dey gis naa muy julli kon jullit la kon rafet na njort ci moom mais taxaw di gëñ naan kii nangam ak kii nangam ah du du pas-pasu ahlu sunnati wal kooku moom beneen pas-pas la ndax mooy addu ci lu nekkul ci sa loxo yàlla tere na la ko laa taqfu maa laysa laka bihi ilm li nga xamul waa dee xamoo ci lan la deewee xamoo jëfam nangu nañ ko wala nanguwuñu ko bul dogu ne aljanna la jëm ki def lu ñaaw faatu jëfam bu ñaaw bam doon jëf xamoo yàlla jéggal na ko wala jéggalu ko bul dogu ne safara la jëm mais kii nag am nga droit yaakaar kii itam am nga droit ragal loolu mooy pas-pas yadu'unana ragaban wa rahaban loolu mooy iman moom la yonentu sallallahu alayhi wa sallam ku dajeeg borom bi ci loolu texe la yaakaar ragal lan lay yaakaar yërmande yàlla lan lay ragal ñu bañ a nangu jëfam hakaza loolu kenn moo koy def mooy borom bi tabaraka wa taala kum ko déeyul duñ ko xam mais sahaba yi am na ñuy déey dañu tudde al asara al mubassaruna bil janna fukk ñi nga xam ne digg nañ leen digg nañ leen aljanna waaye lu génn ñooña dañu yaakaar rekk yaakaar dong nag lañ ciy am donte ñi jiitu woon la jàmbaar lool mais tabaraka wa taala yaakaar la wax inna alladina amanu walladina haajaru wa jahadu fi sabilillah ulaika yarjuuna rahmatallah wallahu ghafur rahim borom bi ne ñi nga xam ne gëm nañu ñooy ñi nga xam ne gàddaay nañu ñi nga xam ne xeex nañu ci yoonu yàlla ñii day dañuy yaakaar yërmandeg yàlla yaakaar la ñu ngi yaakaar yërmandeg yàlla ñu ngi leen di yaakaaral yërmande borom bi tabaraka wa ndaxte yàlla day jéggale day yërëme kon yàlla nañu jéggal te yërëm ñu gis ngeen aqida bii mooy aqida bi mucc ayib ndaxte mooy aqidatul quran ak sunna mooy saxal li yàlla saxal weddi la mu weddi bokk na ca la mu saxal inna allaha la yaxfiru an yushraka bi wa yaxfiru ma duna dalika mu ne yàlla du jéggal ku ko bokkaale mais maanaa bi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam leeral nañ ko mooy ku ko deewaale sahaaba yi ñu bari dañu bokkaale woon tuub mais ñu jéggal leen kon bokkaale yalla nena kuko deewaale du ko jéggal ludul bokkaale loofa indi yalla mu ne man naa la koo jéggal loofa indi mu ne man naa la koo jéggal waaye bokkaale moom mu ne mukk te boo seetloo mais bokkaale moo gën a bëri ci ñaaw kefi ñuy def lépp waay bokkaale ci gën a bëri njistal bokkaale bokkaale la ndëggtal bokkaale la takk gàllaaj bokkaale la barkelu ci nit bokkaale la euh, gëñ tudd nit bokkaale la nga xoolal bokkaale li ñu bëri kasiir yépp ay bokkaale la te mu ne ko ko faatoo du ko du ko jéggal la hawla wala quwwata illa billah donte yu bëri ñu ngi koy tuddee sirkul asgar mais aaya bi sirk rek la wax sirk wu ndaw ñu koy tuddee sirk bu ndaw takk gàllaaj sirk bu ndaw la gëñ ci lu dul yàlla sirk bu ndaw la barkeelu ci tur bu dul turu yàlla sirk bu ndaw la ngistal ndëggtal yooyu yëpp dañuy jàppee ne sirk bu ndaw la waaye lu muy ndaw ndaw ku ko deewaale mën naa dugg safara parce que sirk la lu mu ndaw ndaw ku ko deewaale man naa dugg safara kon loolu nag est-ce que mën ngaa contrôler doomu adama bi yow nga taxaw nga ne moom mucc na ci loolu lépp xasa loolu malaaka rek ci mucc waaye doomu adama moom day jub tuuti rek dëng nga jégglu ngir turu yàlla bi tudd jéggle mu jëfandikoo ko parce que yàlla hakim bu ñëpp nekkoon ay malaaka duñu mooy yàlla manuñoo moy yàlla kon xafuur ban sens lay amati mais xafuur dafa war am sens na tawaab ban sens lay amati parce que mooyuloo bay tuub kon loolu ñu daal di ci daal di ci bàyyi xel bu baax a baax xam ne borom bi lépp lu mu tëral rek moom borom bi subhanahu wa taala hakim kon loolu la cheikh bi junju ci buntu bobu euh donte aya yi mu indi bari na waaye lépp ci ben maana bi la jëm mu waxaat ne wal amn wal iyas yanqulaani an millati l islaami wa sabilu lxaqi baynahuma li ahli lqibla loolu ñu bàyyi xel ci wax jooju nga xam ne moom la sof ci li mu ci li mu waxoon fii këpp ku faatoo pas-pas boobu nga xam ne mooy pas-pasu islaam mu ne kóolute ak jaxkareef kóolute mooy nga dogu ci dara iyaas mooy xaddi nga jàpp ne loolu du am mu ne ñaari yooyu ku leen moytuwul rek ñu génnee ko ci diine ku ko moytuwul ndaxte al amn nga jàpp ne c'est parfait ah jeex na ni ko nit ñi di waxee léegi yàlla am na leneen lu mu buggal lu dul doomu lu tax eh yàlla xamul rahim Ah. allahu akbar loolu la yàlla wax wax leen ne man maa mën a jéggale waaye wa anna azabi ah. foofu nag la ñuy fàtte yàlla wax jooju sax dafa yàqu dàqal ko coxorte sax dafa yàqu loolu sax nekkul waxu teg nii mais la doomu aadama di wax yombalal la ko yombalal la ko yombalal la ko liggéey moom nga jàpp ne ah loolu loolu moom jaratul dara waay jaratul dara loolu rek ñu ko jëlee ci kuréel yi nga xam ne ñu ngi ko doon wax loo mel ne ay al al murji a yombalal la lu ne léeg-léeg ñu wuutal la ay ay kaddu yooyu wax boo defee lu bon ñu wuutal la ay kaddu boo ko waxee ñu ne jeex na jégal nañu la ilaha illallah kooku nag kóolute googu mu am mais kooku looloo ko génne ci diine bàyyi julli bàyyi woor bàyyi saraxe yoonam nekkul ci jàkka dara boo wax nga ne yàlla yërma dem yàq xalaas kon loolu loolu du noonu safaan bi am na mooy jàpp ne yàlla dootul a jéggal loolu njuumte la parce que képp ku ko jàpp rek mooy ki nga xam ne xaddi na kooku wa man yaqnut la yàlla wax kan mooy dem ba ba jombale boppam yërmande ñaar yooyu aussi amu ci benn benn boo xam ne bu baax la ñu netti li ci ci li jiitu woon ñuy bari di ko netti li ci aafatul jahli mooy euh, coonoog riir loru riir ñu ne benn waay moom mooy yàlla mooy yàlla mooy yàlla mooy yàlla rawatina mooy yàlla bii rey defar rey ba rey téeméer bu manqué benn ci ay doomu rey na leen mu ne nu may def man itam ba ba ba yàlla jéggal ma ñu ne ko boo demee fale am na raahib bu fa ne boo ko laajee dina la waxal raahib mooy koo xam ne day sax ci jaamu yàlla ku ñu xamee jaamu yàlla mooy raahib mu dem ci moom nettali ko kooku ne ko non yow jeex na yow rëy nit juróom-ñeent fukk juróom-ñeent mu ne waaw mu ne yow jeex na yow gisatuma sa tuub mu ne ko kon ma mottalee la téeméer bi mu faat ko kooku lan moo ko faat ñàkk a xam mu ngi jaamu yàlla waaye xamul looloo ko faat danger la gis nga bëgg jaamu yàlla sonn ci jaamu yàlla te xamoo amul danger bu tollu noonu parce que loolooy indi loolu mooy indi te bidaa fu mu ñëw rek rey na sunna toroxal na farata bidaa rey na sunna toroxal na farata parce que bidaa la hakaza parce que mu koy def mais xamul am na ñoo xam ne ñu jàpp ne jaamu yàlla mooy toroxal sa bopp kañ la toroxal sa bopp di nekk jaamu bañ a lekk bañ a naan bañ a sol lu baax bañ a sol ay dàll yaaxi ala mata takunu taa loolu ko ko yóbbee ñàkkaa xam rek mais xër na bëgg na jaamu yàlla bëgg na mais nekk ko waa jooju looloo ko dal mu jóg ñu ne am na keneen mu dem ci kooku mu nettali ko fa mu jaar yëpp ndax man naa tuub mu ne ahan kay man nga tuub de ubalul buntu bi kenn bu ma tuubee mu jéggal ma mu ne waaw waaw booy tuub mu jéggal waaye charte nag dafa am charte mu ne ko lan mooy charte bi mu ne ko sart bi mooy fa nga doon moyee yàlla nga jóge fa dem feneen loolu lan lañ ciy déggee hijira ngay gàddaay fi nga doon mooy yàlla ñu xam la fa ñi nga doon àndal ak situation bi sa soppeeku xëj na mu xaw a jafe génnal dëkk bi dem feneen mu ne ko samatan wa taala mu génn jëm foofa faatu ci yoon bi ñu ne malaaka yi di ko xëccoo malaikatu rahma malaikatu azab yi nga xam ne ñoom dañuy préparer rek yóbbu ko pour ñu teral ko ñii yóbbu ko pour ñu mbugal ko ñuy xëccoo am ñu ne leen eh mesurer leen fu gën a jege ngeen atte ko ca loola fa mu jóge fa mu jëm mesurer leen ko ñu mesurer fa mu jëm gën a jege bu texe loolu boo gisee ñu ñu koy nettali bokk na ca husnul xaatima bokk na ca ixlaasu tawba bokk na ci mujj gu rafet pour nit yi ci sonn bokk na ci lamit sellal ci tuub ndaxte bu ci bu ko sellalu loon nangu ko ni kon du gàddaay fiñ ko xamee parce que yombul yonente bi sallallahu alayhi muy gàddaay makka lan la wax dëkk a ngi nii moo ma gënal ci dëkk yi waa samay mbokk ñii buñ ma xatalu doon du ma fi génn kon la ko génne mooy lan pas-pasam bi waa jii la ko génne mooy lan mooy pas-pasam bi nit ki pas-pasam da koy jaral su la jaralut matut mais sa pas-pas daf jaral daf la jaral bañ a wax lu bon bañ a def lu bon bañ a jël loo moomut bañ a wax loo xamut bañ a dugg ci lu sa yoon nekkut lan moo la ko tere mooy pas-pas bi kon heure boobu la xam pas bi jaral na la looloo tax yàlla di woo ñi gëm mu digal leen ragal yàlla ku gëm kay am na ragal yàlla yaa ayyuha alladina amanu ttaqullah kon yaa ki ne gëm nga nga ne ko waaw na la jaral na la jaral am loo xam ne doo ko solo am noo xam ne doo wato noonu am kaddu yoo xam ne doo ko wax am jëf joo xam ne joo ko jëf am mbooloo moo xam ne doo ko fekkee loolu lan moo la ko jaral mooy pas-pas bi mais bu dee yow pas-pas bi jaralu la daara kayfa yakunu hasan kon heure boobu ab jafe-jafe lay doon loolu mooy njëriñu jàng tawxiid waaye nag na nga xam ne tawxiid moom boo ci sóoboo rek na nga sóoraale ay jafe-jafe du yu bàyyeekoo ci borom bi de déedéet mais yu bàyyeekoo ci ñi nga dëkkal feeg yaa ngi ci fiq feeg ñu ngi kàbbar nodd nga ñëw fii julli delluwaat man ngaa bañ am problème man bañ am problème waaye bés boo taxawee nga ne képp ku gëñ tudd nit bokkaale nga eh, am nga problème parce que dañu wax ne da ngay dingat nga am problème parce lan la da ngaa bugg a jubbanti mais boo leen di romb di julli ci waxoo defoo ñoom seen yoon nekkul ci anam boobu mais bu nu géñee ku dul yàlla yàlla rek nga war a géñee yàlla dong nga war a barkeloo moom dong nga war a wakkirlu moom dong nga war a dénk sa bopp hada huwa tawxid loolu boo ko defee am problème boo moytu say soxna ak say doom ak say nangam nangam ndax yaa ayyuha alladina amanu inna min azwaadikum wa awlaadikum aduwan lakum fahzaruhum loolu la yàlla wax mu ne yéen ñi gëm nga ne ko waaw mu ne ah na xam ne nag da nga am noon ci soxna yi da am noon ci doom yi moytul parce que na am ñoo xam ne du ñu ànd ak yow ci li nga bëgg kon loolu la tuddee noonu mais jàpp ni amul benn soxna bu bëgg borom këram faatu jamais amul doom bu bëgg baayam faatu jamais mais bàyyi dina ne nii ñu ne nii kon problème ñëw loolu loolu benn affaire la boo xam ne problème la da ngay digal du def da ngay tere du bàyyi da nga koy yemloo du yem hakada kon loolu rek boo ko gisee heure boobu nag da xam lan mooy njëriñu iman iman boobu nag moo tax ñuy wax lii ñuy wax kon li sëñ bi wax fii lan lañ ciy déggee mooy jaam bi day war ci moom an yakuna al abdu xaifan raajiyan fa inna al xawfa al mahmud al sadiq ma haala bayna saaxibihi wa bayna mahaarimillah mu ne moom day day ragal yaakaar mu ne ragal bi nga xam ne mooy ragal bi dëggu ragal bi jaar yoon mooy ragal boobu day dox sa diggante ak mooy yàlla doo mën a mooy yàlla parce que ragal boobu ngay ragal i yàlla may gis xalaas boo buggee sàcc i yàlla may gis boo buggee wax lu waxu yàlla may dégg ragal boobu ngay ragal boobu mooy lay contrôler ba nga nekk ala siraatul mustaqim ki amul ragal boobu nag am kóolu te na jàpp ne xalaas jullit la jeex na man damay tàbbi aljanna wala man diw doy na ma def ma yóbbu aljanna amul problème kooku lan moo koy contrôler bu buggee def lu bon bu buggee wax lu bon lu koy contrôler parce que day wax diw rek mais wóor na ko ne diw gisu ko rawatina fekk diw moomu muy wax dee na kon kàddu yi ngay wax du ko dégg jëf ji jëf du ko gis kon loolu dina may audience même bu du ragal doo ko rus parce que gisoo ko gisu la mais bu dee nag pas-pas bi allah yara wa maa ngi gis maa ngi dégg la mu waxoon Moussa ak Haroun inni maakuma asma'u wa ara no non dem leen rek dem leen maa ngi ànd ak yéen maa ngi leen di gis maa ngi leen di dégg mais loolu confiance la moo leen may confiance ak ndëgër laay ba ñu jàmmarloog Firawna waaye yow nii itam loolu da nga ko war a fas ba boo buggee def lu ñaaw déedéet bu ñu noddee nga ne éej sàppe bi taxaw fa yàlla gisuma fa mukk parce que mu ne naa dem te bu ma toogee fii dew ma aw ma ngant aw ma lenn moom da koy wóor ne damaa absenté lu tax ma absenté du ngant xalaas nga ne mukk kon lépp loo jàppoon nga dal di ko bàyyi parce que yàlla ne na na nga dem ca jàkk ba naa la fa séen nga dem taxaw fa yàlla gis la xalaas xoolal nim la motivé mais keneen ki amul loolu bu ñu noddee sax daf leen di mere xaaka mu nekk fii toog zéro mètre ñu noddu dara du ko yëngal du xelaat du def dara parce que jàppul ne yàlla nga koy gis jàppul ne yàlla de ko faa woo te dina xool mu nga fa wala nekku fa kon détail yooyu yëpp këpp koo xam ne def na ko rek ah, dana gis ne jàppale na ko ci lu bari lool kon loolu loolu mooy lan mooy la mu wax fale ci xawuf mooy ragal ragal day tax doo moy yàlla mais yaakaar kon yaakaar bi mu ne yaakaar bi daa am loo xam ne loolu la la yóbbee mu ne la rajaa'u rajulin amila bi taatin ala nuurin min allah fa huwa raajin li sawaabihi mu ne ki nga xam ne yaakaar la loolu dina ko motiver moom itam muy jëf lan yamalu attaat muy def liñ ko digal li war a indi tiyaabu day sawar di ko def mais da koy defee nañ ko ko santee ala nuurin min allah ni yàlla santaane ak fa mu santaane mu ne da ciy taxaw ba pare yaakaar tiyaabu booba muy amee ci jëf jooju muy jëf mu ne looloo koy motiver bu ñu noddee regal ey bàyyi ma julli ji parce que boo demee ci julli mbooloo benn julli nga doon war a am mais dinañ la jox ñaar fukk ak lan ak juróom ñaar ci tiyaaba loolu jaral ko mu génn kër gi ñëw parce que bu jullee këram benn julli la am tiyaaboom benn julli mais bu ñëwee ci jàkka ji am na ñaar fukk ak juróom ñaar yaakaar boobu muy yaakaar booboo koy motiver ba daldi ko xacc yóbbu ko ci lan ci jëf lu baax beneen bi li yàlla wax wa man amila salihan xalaas képp ku lu baax rek am nga fukkam mais kooku dafay motivé ngay saraxee te toujours boo ci dogo yàlla woon la ko man mos naa ko tajruba baree bare mos naa ko fi nett bi nga poto bee waajee toog bële ci poto boobu laa wéeru julli julli takkusaan wéeru fa benn waay dugg si ñëw ne ma gannaaw yàlla daal ci yow laa ñëw maa ngi lay géñal ci yàlla ndékkiwuñu añuñu te jàpp naa ne duñu reer te ñu bëggoon daal nga jàppale ma yàlla xam na benn dix mille moo nekk sama poos te moom laa war a joxe dépense suba mais wax ji vraiment ma toog tuuti ne ko waaw dugal loxo sama poche génne bii ji jox ko ma wéer continuer wéeru fi ma wéeru ko daa génn keneen dugg ñëw côté bii julli ñaari rakka sëlmal ñëw nuyu jox ma cent mille francs ci lu matul trois minutes gis nga dix mille bi bu demuloon cent mille bi du ñëw non c'est ça ah ñaata ñaata ñaata laa joxe benn dix mille ñaataa ñëw lan la yàlla wax lan la yàlla wax am ñaata xalaas amul ku ko defalul xëj na nga bañ a seetlu mais ku mu ko defalul amul mais nit ñi nag day am ñuy seetlu am ñu seetluwul mais yàlla defal na ko ku ne ku ne ci àdduna te point bu tuuti bi mooy lan jullit war koo bàyyi xel fitna daa am xam nga fitna mooy nattu léegi-léegi yàlla dina yebal nit ci yow parce que yalla xam na pour tajriba sa iman yàlla dara réeru ko xam na mu soob ko rek mu yebal nit ci yow su la jàppalewul doo réussir ci examen bi mais yàlla na da koy neex mu jàppale la nga réussir mais sinon doo réussir ci ci ci examen bi abadan loolu nag firiwul ku la laaj nga jox ko la abadan ndaxte borom bi subhanahu wa ci boppam moo ne uuhu wala tabsut yadaka kullal bas mu ngi jëkkee ci wala tajal yadaka maghlulatan ila unuqika wala tabsutha hakada mu ne waxuñ nga ne nii rek doo joxe mais mu ñu wax nga ne nii rek doo banque kon foo gis ne war naa fee joxe joxel foo gis ne fii daal gantalal mais booy gàntal nag naga gàntal ci ci yiw bul gàntal ci gëdd bul gàntal ci def leneen ndaxte yonente bi sallallahu alayhi wasallam mu ne këpp ku leen laaj ci yàlla ah, boo yoree jox xalaas kon yii nañu bokk bàyyi ci bàyyi ci xel bu baax a baax xam ne gis na pas-pas bu wér lu ñu ko jaayee jar na ko ndaxte ñëw na ci saxi ci hadisul qudsi yonent bi nettali ko ne borom bi subhanahu wa taala mu ne ana inda zanni abdi bi falyazunna bi ma shaa mu ne man daal ni may jàppee sama jaam moy nin ma jàppee li mu foog ci man mu ne loolu laa koy defal na foog lu ko neex na kon lii mooy tënk buntu fi mu wax ne alxawfu wa raja mooy yaakaar ak ragal kon yow jullit bi yaakaaral ne yàlla def la yërëm kon yow def kat lu ñaaw li yaakaaral ne yàlla boo tuubee mu jéggal la intaha intaha kon naagu bi la ñuy dal di bañ kon borom bi subhanahu wa taala ñaan euh, yal na ñu defal pas-pas bu wér te sàmm ñu aar ñu defal ñu tawfiq jàpp naa ne waxtu bi dab nañu kon ñu tënk foofu bind bi di ñaan borom bi subhanahu wa yal nañu may fekke ak tal damaa xamul nag samedi bi ñëw est du jege iid bi jàpp naa ko de ah nit ñi ah day des ah kon bii ñëw bu dellu see waaw ah, loolu la bii ñëw bu it bi xam naa diggante euh, talaata eh, ajjuma ak yooyu la xanaa xayr insha allah yal nañ yàlla defal tawfiq naam salaam wa tey sox yi balaa wërsëg borom am na benn benn xànte ci Dakar te am soxla mu doon def te marom bi seen bopp ko ci laa ne mu ne daa nekk lu mu def daa dem ci béréb bi ñuy daje di fa lekki mu for fa junni ka doon jaay lekk ba nag mu ne ko fii laa foree lii kon téyal lii boo déggee ku koy laaj mu ne ndax na mu def noona la waaw noona la de noonu sax moo gën a mucc ayib yow nga jël ko parce que foofu moom ku réer le dina fa ñëw di laaj waa ji joxe na ko joxewul loolu sa yoon nekkatu ci sa responsabilité nekku ci parce que yow fi nga joortu ne foofu la ñuy ñëw di ko laajte joxe nga ko fa yow sa jaan wàcc na xalaas amul beneen jafe-jafe boo xam ne mu ngi ci allahu alam naam waaleykum salaam sànq njëlbeen ñu ngi wax comme julli bi dañ ko war a jullee ak bu mu mënta doon comme garaaw julli bi mais jël bu mënta def même safaanoo même ñu xam ko mais ni ko war a jullee ndax am na ci dàpp bi jóge woon Yunus Aleyhisselam Aleyhisselam istiqbaal ci la salaam wax dëgg ndax boobu tam comme jullit bi saa su nekk même bu ñu xamee comme ci jëf bu ne wax waaye le fait que comme mu nekk jullit rek kon dañ ko war a ñaan ndax dañu ci ñoo xam dañuy ne yenn jullit yi ñoom dañuy dañuy def yenn jëf yoo xamante ni jëf dafa safaanoo waaye demul ci kaafir léegi comme jëf jooju ñoom dañuy ne waruñu ko jullee waruñu ko denc ak ñoom jullit wante moom jullit waaw hadis boobu nga jàng moom la sëriñ bi di firi parce que ba léegi ci kii yooyu la ñu ne waaw ñooñu wax loolu njuumte la parce que ñoom ñu ne du yéeféer ah kay ñoom atte nañ ko ne yéeféer leen koo xam ne julleewuñ ko yóbbuwuñ ko ci armée li julli lan la ah moom atte na ba pare waaw xam nga responsabilité yi dafa wuute euh, duma ko jiite ak duma ko jullee du benn duma ko jiite moom imaam am na sañ-sañ bi parce que pour lan pour yaraale ci ñeneen mais bu ko keneen jiitee moom day bokk ci julli bi masalan kii fii la dëkk ñun ñëpp ñu ngi nekk ak moom fii kenn mësu koo gis ci jàkka ji donte nag jullit la mu faatu indi ko ci jàkka ji imaam bi am na sañ-sañ mu ne kii moom duma ko jiite parce que daaw ma ko gis mu yeew ci jàkka keneen ku ko mun a jiiti nag ñu bokk ñaanal ko moom am na sañ-sañ boobu la tere mooy ñu koy jullee ni taxaw fole ne kii duma ko jullee parce que def kat lu bon la loolu la ahlu sunnati wal jamaa di tere parce que yow ki wax wax jooju doo parfait léeg-léeg fekk triant moom dafa def triant wala moom mos naa sàcc wala njaalo na wala ci loolu nga xam ne moo tax mu du ko def xëy na yàlla baaxee na ko moom tuub na peut-être kon yaakaar boobu ak yërmande boobu boobu moo tax daa bokk ci kii moo gën a yeeyoo nañ ko ñaanal nañ ko ñaanal borom bi subhanahu wa taala ni mu yaatoo moom mu dugg fa munu la faa xañ dara kon yéene boobu nga am ci moom moom nga bëgg yàlla am yéene boobu ci yow loolu Abubakar ni Siddiq waxoon na ko ci benn waay mistah ba ñu tuumalee Aïcha radiyallahu anha moom mu taxaw mu ne kii moom pare naa ci moom kii pare naa ci moom kii moom dootuma ko jàppale dootuma def nangam ak nangam te moo ko joxoon fa mu dëkk moo ko doon jàppale mais ba mu waxee wax jooju aaya alquran moo wàcc mu ne ko waaw yow nag xanaa bëggoo yàlla jéggal la mu ne lool rek laa bëgg yàlla jéggal ma mu ne lépp lu ma ko doon defal ale defal leen ko hakada kon gis nga nit ki ni nga bëgg borom bi jàppee la jàppee ko jaamu yàlla yi yow da bëgg borom bi suturaal la da bëgg borom bi jéggal la da bëgg borom bi yërëm la waaye yow lu tax nag ñeneen ñi doo leen suturaal doo leen jéggal doo leen yërëm lu tax kon yàlla bu ko fayee loolu mu fas du texe kon nañu yaatal xol yi bàyyee nit ñi yàlla yàlla leen moom hakada allahu alam waxtu bi jot naam kon bu mujj incha allah ah est jullit yéeféer jaale yéeféer aha kay parce que dëkkandoo la mais nag jaale yéeféer daa jafe de benn du ko ñaanal du ko ñaanal de Pasa yon li nga fas chisa xol, mounak chisa iman, mwenye kudewe kefer, do do kwa aljanna? Pase lol la yon nan kwa fas. Nga fas loun wepare walbate kwenye nan kwa aljanna. Mantane? Dede? Konboy benne. Nyar lepulun kwa idefal lujen chi dinye mdo chi bok. Me denga yon dem mas ta wuko. Dega yon lambo sa pos joklen. Pase yon dek. ak boobu mu ngi ci seen diggante kon bu amee loo xam ne mbégte la da ngay dem ndokkel ko bu amee loo xam ne safaan la dangay dem mastawu ko te da ngay làmb itam dal di fedd li dëkkandoo bi waaye doo ko ñaanal te doo bokk itam ci lépp luñ koy defal nga xam ne seen diine ñoo gisee noonu yow doo bokk ci loolu diina lislaam dafa tolérant xañ na <laughs> doomu aadama yi rek ñooy xaw a sàggan tuuti mais vraiment yal nañu yàlla jàmmal